wul ñu dem enquête mais bu la wóoree ne nekk ñu tudd ba pare nga bañ ko yaa ñoo ma yem léegi foofu nag damay wax ne lu ñu gën a gaaw ci tas ensemble bi man maa doon wax saa wolof ne treizième législature bi quinzième législature bi damay nekk député incha allah ba ma koy wax nag bokkaguma Pastef te dama ci doon teg ne avec ou sans Pastef dama koy dem nekk parce que yaakaaruma ko laa nag dama bokk moo tax ñemewu ma ko ñemeetuma koo réclamer di wax ne par force mais dama ne prochaine législature bi ñun ensemble ñun danañu am beaucoup de matière lu ñu présenté askan bi pour wan leen ne ñii duñu ay nit ñu baax bu boobaa na bari ci société civile bi ñoo xam ne nañu dem postuler pour nekk ay député bu boobaa mu xaw a équilibré mais lépp lu tax ci APR képp ku leen voteel bëggoo Sénégal parce que wane nañ seen ay limites parce que luy leer yaa ko xam taxaw ne nañ dakkanalandi sax caxatee suuf gi ñuy def littoral bi nga fii a ngi ni taxaw tàng jër lu tax fii tàng parce que beex mi ay immeuble moo la ko baare mais bu ñu demee di lijjanti loolu ku la taxaw ne la duma ko lijjanti kooku jubut mhm. mooy waa APR jubuñu loolu mooy wax ci te gis ay arrestation commencé am ci ay problème suuf ku ci mel ni ki moo di Doro Gueye de même que nga xam ne moo di euh, euh, Adama Faye tey nag nga jàng mais loolu ay particulier la ñu amal affaire mhm. mënoon ci particulier la Adama fay bi mu fayee mi ngi noonu ba nañ ko. Mhm. doora géey lu tax Doro Gueye. Mhm. la mu fa wax moo ko téye. parce que ñu ne ah ku kii kayit yi ñu ne. diwoo ma doon def loo. Mhm. di ma dox loo ay mission secret. mission secret da yaakaar naa ñii lañ ci xam. ak ñeneen ci armée wala leneen leneen loo xam ne. daal ci sécurité nationale lay aj mais Doro géey gisaluma ko lu mu war a mën a taxaw tey di dox ay mission secret. loolu lu nébuleuse la loo xam ne nii leerut léegi kon loolu bu amee looloo ko fa bàyyi kon kooku dafa mérité dem instruction li neex ci mbir mi wala li ci am solo mooy justice mi ngi def liggéeyam réforme yi sax taxawaguñ ci waaye nam meloon képp bu ñoo amoon njiit lu maandu comme président Diomaye naga ni Sénégal doonuñ foon dégg problème kon da ngay gis nekkoon kon waxuma rek li ñu war a jooyantiwaat waaye fi mu yemoon képp ay procureur yu fi Macky Sall bàyyi ñoo juge yu fi euh, Macky Sall bàyyi ñoo fi nekk fañ nekkoon ñu ngi ay magistrat yuy yuy jugé ñoo fa nekk te mbir mi ba léegi gisoo kenn ku ñu salfaaña àqam nee ma kenn ku ñu woo salfaaña àqam du Bah Diakhaté du imam bi du Doro Gueye du du du Adama Faye kon loolu bu fekkoon moom la Macky Sall doon jiitee Sénégal du ñu yegg si fii loolu moo ci mat sant yàlla moo lay xamal ne Sénégalais yi juumuñu jàpp nga Serigne Bara Ndiaye que dina yombee noonu bu ko waxoon pour sotal ko. Ah, bien sûr loolu mooy dëgg fii ku fi jalgate ku fi tooñ nit loolu mooy sécurité te loolu Cheikh Bara bu ko defoon bu ñu koy daan mu dem ba xam ne amul preuve wala li jàppoon du loolu du ko daanee da koy sant yàlla. xam ne moo juum bu boobaa mais le contraire bu amee nag yow doo ma laaj le contraire bu amee mais kooku dem kaso fay ñu suñu xaalis ngir mi loolu la looloo ci neex mooy état de droit lañu nekk est-ce que yow am na lenn yow yéen journaliste lu ngeen gis ci mbir mi lu leen di montré ne nekkuñ ci état de droit bu amee ngeen wax ma xam nga kon loolu rek moo ci am solo mooy ñun Sénégal nit ki ak lu mu rëy rëy loxo ak lu mu màgg màgg nay président Diomaye nay frère am nay ku mën doon bis boo am lantee ak yoon ki am dëgg mooy am dëgg maanaam doo rëy ba tax dëgg du daal sa kaw waaye doo ndaw tamit ba tax dëgg du dal sa kaw. nga bëgg a évoquer le nga xam ne récemment moom tamit nañ koy placé en garde mu daal di bénéficier deux fois recours bien sûr mais nag euh, man dama dégg ne dafa saaga man bokk naa ci ñi njëkk a ci kawam. parce que biñ ne dafa saaga magistrat yi loolu d'accordu ma ci dama wax ne te dama yàgg a wax ne ñun ñi ànd ak Pastef wala ñun ñu leen di kenn ku nekk war nga defar sa taxawaay defar say kàddu woddu sa saw làmmiñ ba lépp looy wax mu doon dëgg waaye li nga war a wax nga wax li nga war a wax comme ça ñoom danañ leen musal ci loolu parce que état de droit lañ nekk mu am ci lu ci nekk mooy menacé na waaye saagawul parce que tamit man saa wolof soo nee ma nangam soo ko soo jógewul fii ma saaga sa saaga woo ma da nga ne ma boo mu jógewul fii ma saaga sa loolu duy saaga loolu nag léegi ma làmmiñal bi mooy wax mooy kii nekk ci langue wolof te nag ngay juste ngay président Diomaye man làkk wolof ku ko laal laal ma bu fekkee ne dañoo bëgg a jël lu wolof deful saaga ñu koy def saaga ku ko def dinaa la nekkoo ci dëgg bis buñ ko ci daanee dugal ko ci biir euh, mbir mi nu mu tuddati euh, liñ koy toppee ne dafa saaga danaa wax ne ki ne dafa saaga waxu dëgg daa fen maa koy wax parce que loolu ay saaga menace nag kenn waru koo def kenn magistrat warul di àtte nit di ko xoqatal te loolu xoqatal ci la bokk. parce que bu magistrat non loolu du outrage man man jàpp ma loolu. menace lañ ko war a toppee. parce que tey magistrat dafa war a àtte ci dalak sagoom waroo ne ko bu ma la magistrat bu bañee nga saaga ko te mu ragal ay saaga mën naa am li nga koy wax bu jàppee da ngaa farefee du mujj fen bu la ragalee man naa tax mu àtte leneen te jàpp ma ne noonu la demee léegi nag. problème bi mooy man damaa jàpp ne jooyantiwaat dafa waram wala buñ koy teg ay avocat nañ ma woowee témoin ma taxaw ne magistrat bi kii saaga wala buñ ma laajee ma dana doonut saaga c'est fi kii konk loolu du saaga xottee na ko war ma maanaam mën naa jàpp ne waa ji sax bi mu koy wax saagaa tax xam tey du ma wax loolu ki koy wax sax mën naa xam loolu jublu ci saaga mais loolu tuddul saaga loolu tuddul saaga saa wolof boo jógee woon fii ma saaga santay saaga woo ma danga nga ne boo jëwul fii nangam léegi man ma taxaw fa ba xam da nga ma saaga du tamit lu ñu lu ñu war a lu rafet a wax parce que tamit bu ñuy wax ci teggin mooy lii nga wax mënoon nga koo waxee nii wala mënoon nga ko waxee ne te gars yi nañu bàyyi menace nañu yar kaat lii rek day wane ne yoon a ngi doxal doxal yoon lan moo fi jar menacé te tout moom mooy li mu def ak li may mun a bu soo defoon naan ñun waa nangam ñu jóg xam fa ngeen nekk benn la c'est des menaces du dëgg du yoon man lépp loo xam ne bu ko waa APR daan def ma ne dëgg du yoon bu ko nit defee ku bokk ci combat bi ma dëgg du yoon même li ba daam booy wax bu yàggut it c'est c'est la même chose ak li kii wax du dëgg du yoon nañu bàyyi menaces yi taxaw xam ne ci état de droit lañ nekk ku fi def lu dul yoon ñu bàyyi ñu woola ci yoon comme nii muñ am. yoon yàgg na am ay rëq-rëq ba tax ñu amaloon réforme justice bien sûr bien réforme yi looloo ci am solo moo tax réforme yi tamit xam tamit liy saaga parce que tamit euh, xam nga ñun. ñu am ay langue nationale ba pare gën a respecté langue français que lële parce que mun ak cuune dëgg mooy tax nga toppe ne kii dafa saaga man ku ko mën a wax ngay président ngay magistrat ngay keneen ku tudde lii saago dama naan la xamoo dara wala yow tamit ngay tooñ wala nga wax lu dul dëgg soit mu doon ignorance totale de la part de ñuy wax ne lii ay saaga la wala ñoom ñuy wax lu dul dëgg taxaw di ko di ko di ko giñ ke loolu tuddul saaga que bu doon bàyyam du ko wax d'accord naa mën naa wax waaw mais nañu tuddee liy saaga nañ ko tuddee saaga li dul saaga ñu tuddee ko lu dul saaga ni ma d'accord wut ak moom ci wax ji parce que menaces si tegewul fenn ak reewande dong la wala muy leneen ak leneen loolu tamit justice moom waaw mais ñu ko jàppee saaga dañoo juum man dama fi nekk pour loolu yaa ngi may loo ma wooyee saa wolof saa wolof bi dafa taxaw fi bu ñu waxee lu wolof waxul wala yàq kàddu gi ma ne leen lii tudd nii loolu obligation la ci man bu ma doon liggéey bu may taxaw di ko ñuy def procès bi nañ ma ma taxaw ne magistrat bi lii du saag nañ ko toppee menace xam nga menace de mort am na de d'insulte xaw ma nu ngeen koy mën a waxee nañu requalifier fee yi parce que yoon tamit daa war a tege ci yoon loolu bu ci yoon tegee ne ne ne ne ko daa saaga yoon teggi na yoon te yoon bu tegee yoon dootul nekkati yoon buñ doon ñëw fii dikk ngay ñëw fi ba mu yàgg ñu tëj yoon bi na la ne est-ce yegg si dikk benn feneen nga jëm kon yoon war ta teg yoon ñoom tamit nañu nañu nañu tege ci yoon pour doog a jubbanti nit mu tege ci yoon daa réew d'accord naa sëñ Touba mais yëkkati ko